waaw tey dañoo ñëw ci turu euh, autorité politique yu département de Mbour yëpp muy ñi nga xam ne ay membre du gouvernement lañ te ñu jiital ci le ministre El Hadj Omar Youm man cee tudd Sophie Gladima Siby mais man cee tudd le ministre Serigne Gueye Diop waaye ñu ñëw ci turu parlementaire yi nga xam ne tey am na ñuy ànd ak ñun muy Sira honorable député Sira Ndiaye honorable député Pape Diouf ak képp koo xam ne parlementaire nga waaye ñu ñëw ci turu maire département Mbour yëpp waaye ñu ñëw ci turu directeurs généraux yi ak président conseil de surveillance président de conseil d'administration nous ci turu responsable Benno Bokk Yakar, nous ñëw ci turu militants yi population bi parce que tey jii xeexu population bi la pour indi sunu jàppale ci comité départemental bi nga xam ne ak coronavirus bi nga xam ne préfet moo euh, jiite médecin chef de district yi topp ci ginnaawam service d'hygiène ak yëpp service yi nga xam ne rek ñoo bokk ci comité bobu.

kon loolu nag balaa mu ñuy man ñun nañu jóg ñun ñëpp ñu boole suñuy doole muy pouvoir muy opposition ñu joxante loxo lu waay man mu dajale ko ñëw jàpp ci ndax après tout suñu combat la ñun population bi donc ñu ci leen di jaajëfal nag ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñoo ñuy wuutu fu ñu teewul ñoom ñoo fay teew muy le préfet du département ak sanitaire parce que ku nekk xam ne ne am na benn benn cas ñu tudd ci département de Mbour waaye dégg nañ yaatuwul loolu nag seen taxawaay ak seen gaawaayu réaction moo tax loolu am donc il faut au nom du département au toutes les autorités politiques ñu ñu jaajëfal leen ci taxawaay boobu te di leen encouragé di leen xamal ne incha allah combat bi duñ ci wet fuñ ci toll daañu gis daañu gis ci seen ginnaaw daañu gis population bi ci seen ginnaaw may lancer appel rek population bi ci turu autorité politique yi ma tudd léegi. ñu respecté li nga xam ne loolu leen docteur yi wax ci wàllu set ci wàllu sorente ak bépp conseil boo xam ne bi rek docteur yi wax nañ ko waaye tamit ñu respecté li nga xam ne moom la autorité administrative yi jël ci wàllu ndigal. ñu moytu daje yi ak ñu daje bi mën ti tudd dañ ko bàyyi pour que véritablement ñu mën a gañee feebar bi ndax feebar bi kat daaneel na tey ay réew yoo xam ne yi boo doon xool ëpp nañ Sénégal doole téeméer yoon kon boog ñun li ñu jik mooy mu bañ fee am doole mu bañ fee law lii tax nag loolu bañ am ñoom ñii ñoo ñu koy wax ñii population bi ñu am civisme topp ci seen ginaaw respecté ko ba pare jàppale leen ci